Duksane, General Malika. inaugural none of that. Thank जनरल मलिका अब्दुल शाह ने अब्दुल शाह ने जाप ना ñaari loxo japp na ngembu ñaari loxo yëpp japp nañ Doudou Sané attention attention Doudou Sané daan na général Malika jël bu set wàcc